douze ans après ñuy dundaat la même situation lan la ñuy def bay dundaat la même situation il s'est trouvé que euh, Macky Sall ak Ousmane Sonko fu ñu tàmbalee dafa sori te lu bari bari bari xaj na ci seen diggante coow li bari na fi ay xeex am na fi lu ne am na fi mais bu ñu fàtte objectif yi objectif yi mooy Macky dafa jóg ne Ousmane Sonko du dem ci élection yii ne da koy tëj ñaar yooyu moo ne woon objectifu makisal Sall Ousmane Sonko objectif am moo ne moom du dee moo ko gënal Macky Sall di ko tëj ci kaso yi dee moo ko gënal ay élection munu am Sénégal te moom bokk ci donc ku ci nekk danga amoon objectif léegi dem nañ dema dema dema dema dem ba tey benn objectifu Macky Sall sotti na mooy noon bi mooy fexe na ba tëj Ousmane Sonko par A ou par B mi ngi ci kaso bi deuxième objectifu Macky Sall mooy mu xañ Ousmane Sonko élection yi muy ñaari objectif kese la Macky Sall amoon mooy bu ko defee mooy matal na ñaari objectif am yi moom mooy dem ci euh, élection yi boobu sottiwul mu ne bu ma demul dinaa tëj Ousmane Sonko te du dem ci élection donc ñi nekk di subir nag situation yooyu nga xam ni buñ ko tàmbalee ba léegi ay nit dee nañ ci rey nañ ci ay nit ay nit gaañu nañ ci ay nit dugg nañ ci kaso yi et cetera et cetera donc bu tey bu ñu peuple bi seetaanee ba Macky Sall réaliser ay élection def ay élection organiser ko sans Ousmane ko mooy ñaari bëgg-bëggam yooyu amoon ci jàmm ay élection ci jàmm mooy wane ni Macky sàll a réussi son coup ça day wane ni Ousmane Sonko n'a pas réussi son coup parce que Ousmane Sonko avait dit que moom Macky sàll mënulu ko dara te du ko tëj ci kaso yi tëj na ko Ousmane Sonko avait dit que ay élection mënu fi am sans moom kàddoom la moom kàddoom la ay élection mënu fi am sans moom bu fi naree am dëkk bi dana nekk tooy buy dëkk bi dana rajaxoo donc bu fekkee ni sénégalais yi diggante boobu am na ñu leen nax ay force occultes yu leen nax gëmloo leen ni bu leen xeex bu leen def dara ba Macky Sall mun a organiser ay élections sans Ousmane Sonko ça montre que Macky Sall a réussi son deuxième coup mooy maanaam pexem yooyu mu tàmbale woon réussiraat na deuxième bi mooy tëj na Ousmane Sonko organiser na ay élections sans Ousmane Sonko léegi nag loolu danger dafa am danger bu fa am moom mooy Macky Sall dafa jàpp ni seul Ousmane Sonko. moo ko mun a xañ moom élément am candidat am bañ a jël nguur gi loolu moo tax mu jël objectif am yëpp wékku ko ci Ousmane ko kese ne kii bu mu ko daanelee li ci des li kii moo gën a ngand ci mbir yi kii mooy l'arbre qui cache la forêt bu ma ko daanelee li amul lu ma ciy jaaxalati dara dootuma jaaxalati donc loolu moo tax mu jël intention am teg ci bakkanam ne day éliminer Ousmane ko par A ou par B bu ci dese nag leneen li mu fas ne jàkkaarloog ñeneen ñi nga xam ni comme nu mu ko defee en deux mille dix-neuf eh, sàcc élection yi taf taf lijjanti affaire yi ba taxaw ne moo moo gagné élection yi premier tour. te y avait Ousmane Sonko ci élection yooyu y avait sa sekk mu sàcc ne premier tour te ñëpp xam nañ ne daf ko sàcc ay élection yoo xam ne résultat ay génnaguñ sax ñu taxaw ci télé donc sàcc yooyu ñu ngi waat fii ba léegi bougé wuñ benn yoon. ces voleurs la ba léegi ñu ngi fi confiance bu ñu am ne bu ñu éliminer Ousmane Sonko lu ci des dañ koy gagné confiance boobu lañ nekk ñoom gëm ko gëm a gëm a gëm ba tam dañoo jàpp ne ñoom dañuy gagné élection yi bu ñu fi génnee Ousmane Sonko. dañ ci ànd ak confiance nag barke alxuraan dañoo ànd ak ils sont très confiants bu ñuy éliminer Ousmane Sonko dañuy gagné élection yi ñoom. xaw ma fan lañ ko teg nag mais dañu am confiance bu nganda nganda nganda nganda nganda nganda ba jàpp ne ñoom bu ñu dóoree Ousmane Sonko bu ñu génnee Ousmane Sonko dañuy dañuy jël élection yi dañ koy gagné donc maintenant li fi nekk moom mooy face à l' actualité lan la sénégalais yi stratégiquement war a mun a def ba contrer Macky Sall ci programme am bi ci complot mboobu mooy bugg a éliminer Ousmane Sonko ci jaayum doole parce que justice moom waxatuñ ko. bu fekkoon justice lañuy wax xam nga nañ ko waxte dee bi nga xam ni cour suprême atte na ñu jël ko yóbbu ko Ziguinchor Ziguinchor atte ne Ousmane Sonko am na dëkk bu fekkoon boobu jox nañ leen parrainage yi ngeen xam ni bii nii sax dinañ leen jox parrainage yi man musuma xaar ni dinañ leen jox parenage yi de musul nekk seen objectif te Ousmane Sonko duñ ko jox parrainage ba mu jeex tàkk duñ ko jox parenage ba élection di am du du euh, du jot parrainage parce que mais loolu dafa leer ci yéen bu fekkoon dañ koy jox parrainage kay dugal ko ci liste électorale yi kon saaba si fay bu mu waxee boobu lañ ko koy delloo mais saaba si fay ba mu waxee delloowuñ ko ko léegi nga bëgg après saaba si fay wax wuñ ko ko nga ngeen bëgg Ousmane Racine Thioune Thion wax ñi delloo ko mais <laughs> bu fa trompé lourdement bandi bi tere bi nga xam ne moom moo piétiné justice bi bi nga xam ne saaba si fay def ne delloo leen ko ci liste électorale yi te ngeen jox ko ay droit am waa ji bafoué ko mais kon kay du tey la waa ji di def loolu du tey la koy def kon kay ñun ñëpp dañoo toog rek xam xam ni waa ji ñuy jaay doole waa ji ñuy jaay bandi jógaguñu pour fayantoo wala pour xeex ko mais ku ci nekk na nga assumer ni bokk nga ci li xew parce que qui ne dit rien consent yow mi toog di seetaan situation bu demee nii jaralu la génn jaralu la wax jaralu la dox nga toog ci internet bi wala réseaux sociaux yi wax kese loolu yow tu as assumé que li ñuy teg Ousmane Sonko ko nga cee ànd da cee ànd parce que yàlla daf ne injustice da ngay jóg nga xeex ko boo ko mënul xeex nga jooytu ko nga wax ko boo ko mënul jooytu nga jooy ko ci sa xol donc li ñuy teg Ousmane ko bu fekkee ni nit yi jóguñu yëlbët taxaw wane ni lii ñuy teg Ousmane Sonko jaarul yoon du dëgg du yoon ñu toog di ko seetaan ba pare toog toujours ci seen rêve yooyu naan ay day dem day dem day dem te teguñu ko fenn loolu sincèrement moom mooy da ngaa accepter forfaiture bu ñu def Ousmane Sonko da nga ko accepter ci nii wala ci nee mais da ko accepter parce que defoo ci benn jéego jógoo ci defoo ci benn jéego fi nga toog nga toog di gis jaxaran yógoo ci xeexoo ko jë jëmoo ci doxoo jëm ci donc ki nga xam ne nag moo xañ boobu ba léegi bu saaba si fay waxee ba léegi amul benn droit wu Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko jot benn droit am saaba si fay bu mu waxee ñu war ko delloo delloowuñ ko ci list yi saaba si fay bu mu waxee joxuñu ko ay parrainage kon Ousmane Thioune Ousmane Thion Ousmane Racine Thion bu mu waxee tam duñ ko defal dara parce que gars yi ci doole la ñuy dox ci jaayum bandi la ñuy dox ci sañ-sañ lañuy dox te loolu sénégalais xam nañ ko léegi rek ñaar moo fi nekk waa ji jaay doole ak keneen kuy commenté Macky Sall di jaay Ousmane Sonko doole ak sañ-sañ piétiner justice bi am ñoo xam ni ñoom dañoo yor euh, code pénal bi rek di mi mel ni ab bandi bu dugg sa kër jàpp say njaboot di dóor jàpp sa baay di dóor ngay réciter ngay tourner ubbi xuraan bi di réciter di réciter xuraan bi bandi nga dugg ci biir kër bi jàpp sa baay di dóor di diri ngay réciter xuraan bi naan ay yàlla nee na boo duggee ci kër nga diri ko nga kii ko yàlla nee na mais sa waay kooku yow yaa ko gis yàlla nee na taxul waa ji bàyyi sa bàyyi yàlla nee na taxul waa ji bàyyi di diri sa bàyyi yàlla nee na taxul waa ji jóge fa ba génn sa waay yàlla nee na nga jóg yàlla nee na nga jóg nga dakkal lii ngay gis nii nga gis ko yow jaxaran jàmmaarloog moom ñi diri sa baay di yóbbu di dóor diri nga gis ko donc da teg kaamil bi nële nga bàyyi yàlla nee na ki nga jóg affronté waa ji mu bàyyi sa baay loolu muy dëgg dëgg ji loolu mooy wa luy dëgg jamono jii bàyyil gars yi ñu def élection sans Ousmane Sonko c'est baliser le terrain à Macky Sall c'est être complice képp ko seetaan ba ñu éliminer Macky Ousmane Sonko mu bañ a dem ci élection yi tu es complice complice nga ci li Macky Sall def nga yëg ko nga ñàkk ko yëg ndax ba muy continuer di def progression yaa ngi koy gis jàmmaarloog moom nangoo cee wax nangoo cee yëy nangoo cee yàbbi chaque jour que Dieu ñun dañoo nekk ci émotion bu doy waar moo tax musuma ànd ci émotion boobu damay xool sax ma ne situation bu sénégalais yi di dund am na sénégalais yu nekk te xamuñu sax lu xew quand je les vois rigoler quand je les vois rire je me dis que soit sénégalais yi comprendre ñun luñ leen di wax ci ñu ko séqal parce que tamit Sun Tzu dafa wax ni nee na booy xeex da ngay xam sa ennemi xam ay fooram xam ay faiblesse am xeex ak Macky dañ la war a kan nga amal affaire man quand je vous vois rigoler comme sa di saboter nii non damay toog ma ne sama équipe ñi may xamuñu ku ñuy xeexal parce que kuy xeex ak Macky sax nalaw bu dee xam nga ko chaque jour boo leen joué ci ab ndir seen yaakaar tas yow Ayib Daffé Ayib Daffé daw na Ayib Daffé bu na affaire ba affaire gars yi di reetaan quoi Ayib Daffé ana Ayib Daffé ma ne mais shit shit man gars yi ma àndal nii comprendre nuñ sax c'est des sénégalais quand même mais comprendre nuñ les enjeux xamuñu dara ci mbir ñoom foo lañ ko def dañoo jël affaire bi Macky Sall di xeex ñoom di jël lépp lu mu am di ci xëpp teg ci bakkanam ñi muy xeexal di foo muy avancer rek. Euh, ay dafe ana kii bi yóbbu na ko nëppatu na ay dafe <laughs> ay dafe tey du liggéey dimanche du liggéey moo xool ñu c'est des gens c'est vrai c'est des ñu bëgg affaire yi la mais comprendre ñu dara dara lépp nag Macky Sall mi ngi foog ñoom parce que émotion bi moo doy waar te gars yi xamuñu fu ñuy ree xamuñu fu ñu war a jooyee xamuñu fu ñu war a ree xamu ràññeetuñu famille patriote la ràññeetuñu ngénte ak dëj fépp la ñuy reetaan fépp lépp lañ def foofu ay Daffé tey moo bugg a dugg fi nga xam ni foofu la duggoon mu ko tey kon ñii ay bandi la ñoo xam ni yéen fi ngeen nekk ak ñoom fu ñu ne bokkuñu ñoom nalawuñu et ça c'est triste c'est-à-dire enfantillage bu nekk ci ñun ak affaire bi ni ñu ko jëlee caaxaan affaire bi tollul foofu ga affaire bi vraie guerre la guerre bu doy waar la bu ñuy dund suñu leader bu ñu yaakaar topp ko gëm ko jafandu ci def lu ne la tey lañ bëgg a comme lu ñu éliminer woon Khalifa sàll comme nu ñu éliminer woon Karim Wade Ousmane Sonko taxaw wax ba sonn ne leen ne Macky Sall billaahi boo ma bëggee éliminer di nga jaar ci kaw néew di nga jaar ci kaw néew man duma xalifa Sall man duma Karim Wade mais mais Abdoulaye Macky Sall mi ngi koy wax ni hey yow Karim Wade nga yow Khalifa Sall nga ni ma def Karim Wade ak Khalifa Sall 2019 noonu laa lay def élection laay organiser mu fekk la ci biir kaso bi te doo bokk mais noonu la def Khalifa Sall noonu la def Karim Wade bu ko réussir Ousmane Sonko c'est se l'a fait te Ousmane Sonko loolu la Moussa bañ ci àddunaam nee na ko nu nga toroxalee xalifa Sall toroxalee ko Karim Wade doo ma ko toroxale mais bu leen bu Ousmane Sonko demee bay défier Macky Sall c'est parce que il a confiance au peuple sénégalais ku ko fekkoon ci kaso ba fëggu ko ne ko lii du ko gëm parce que moom il avait très confiance au peuple sénégalais li ñu def Khalifa Sall sénégalais duñ ko seetaan ñu def ko ko moom. moo tax il avait défié Macky Sall xamal ko ni li nga def Karim Wade li nga def Khalifa Sall tëj leen da ay élections sans ñoom ñun duñ ko seetaan mais c'est ce qui est de sa de se passer comme ça. li ñu def Khalifa Sall lañ nekk di def Karim Macky Sall li ñu def Khalifa Sall lañ def euh, kii nga xam ni mooy Karim Wade. organiser des élections san ñoom ba pare mu fekk leen ci kaso bi mais Macky Sall Sonko mi ngi nekk di dund loolu jamono ji te dans quelques mois dans deux mois exactement y aura des élections te bu dee nii la ñuy doxalee y aura pas Ousmane Sonko je vous le dis prenez note man duma leen fenn prenez note bi bien note dama ne ni ngeen di doxalee nii taxawaay bi ngeen taxawee toogaay bi ngeen toog nguuru uufu di foo dama ne boo quatre-vingt-dix-neuf pour cent Ousmane Sonko dem ci élection yi quatre-vingt-dix-neuf pour cent Ousmane Sonko n'a pas de chance dem ci élection yi bu fekkee ni ngeen toogee nii noonu ngeen toogee te bés bu ñu demee ci élection yi gars yi ñu ngi waajal loo xam ni barke alxuraan dañuy tourner gis gars yi taxaw ci télé bi ne ñoom gagné nañ ko dañuy tourné rek gis leen ñu taxaw ci tale bi ne ñoom gañe nañ ko génneel ñu ay résultats ak ay chiffres yu teguwul fenn les dégâts seront très énormes bés bu ñu seetaanee ñu fooyee Ousmane Sonko bés bu ñu tegee gis nga ay affaire u Macky Sall gëmul justice ay décision de justice xalifa Sall Karim Wade fukki dërëm jëluñu ko ci moom ba suñ jonn yàlla tey nii yóbbu nañ ko ba CEDEAO CEDEAO ne Karim Wade moo gañe Macky Sall musul faale loolu musul faale loolu donc je peux pas comprendre des sénégalais xaw ma xaw ma Australie lañ juddoo xaw ma euh, Cameroun lañ juddoo j'ai pas compris ñu toog di wax ay waxu décision de justice décision de mais ils sont malades ki ngeen wax nii Macky Sall moo premier sénégalais bu voté sans carte électeur sa baay def na ko sa yaay def na ko ban président moo ko mës a def c'est que Sénégal est-ce que amul amul ñoo xam ni nekkuñu woon fii wala seen papa dañu leen juree outside xamuñu dara Sénégal ñi ngi doo ko intéressé wu ci politique. Macky Sall est la première personne au monde bu dugg ci bureau voté te amul carte électeur te indiwul carte d'identité man de sama baay mënu ko. sa baay mënu ko ma Abdoulaye Wade musu ko def Abdou Diouf Macky Sall boo ko def mais cette personne là après temps d'années gars yi di ko waxu justice quoi ay justice ay justice il parle de quelle justice Macky Sall s'en fout de la justice s'en fout éperdument de la justice te gis ngeen ko du tey xaw ma tey ngeen nan la nit mën a ñëwee ba vingt et unième siècle di comprendre que Macky Sall nakate xamul sax faalewul justice Macky Sall est dans son monde Macky Sall est monde buur benn demi buy wax lu ko neex gars yi di def sëqët di mer gars yi di wàcc seen bopp yi muy wax lu ko neex di leen saaga ay ndey ñëpp na tekk c'est quelqu'un koo xam dafa conquérir le Sénégal jàpp ni moo ko moom ay maama ma ko fi bàyyil donc ka ça parle de Macky Sall et ça parle de ay décision de justice je comprends par là que ces Sénégalais là n'ont absolument rien compris absolument rien compris Ousmane Sonko bu doon justice la kon dinañ ko paqueté ba indi ko fii ba indi ko fii Ousmane Sonko bu doon justice la kon tey dinañ ko di <laughs> compte maxi bi du dox comment des Sénégalais peuvent parler en ce moment là de justice ndeysaan ils ont tout oublié ils ont tout oublié c'est triste c'est catastrophique waxtaan nag wax wax dégg ca la te di déglu Macky Ousmane Sonko lu ko bàyyi ci kaso bi et pourtant képp ku xam justice génn na ne compte max bi normal na kon dañ ko waroon atte dañoo war a attewaat est que attewaat nañ ko kooku kan la Macky Sall xanaa balaa nga maa wax justice kay Ousmane Sonko bi ñu jàpp jiñ ko sàccum portable juge ko ne deful violé wul deful dara mais corruption de jeunesse ñu jàpp ko ñu ne compte max bi dox na bépp gis ngeen dem jëli ba ay australien ñu ñëw ne xoolal affaire bi compte max bi normal